داري وثبته بالهادي الوفي lépp sant rek ci war sant rek lañ ci def ci ne war la te maanaam ni ngeen ko ni ngeen ko bàyyi xel xalaate ko xamee ko noonu bàyyee ko ne ko loolu def ci itti jooju loolu moom alhamdulilah alhamdulilah rek auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ci ndigalul sunu kilifa Cheikh Mouhamadul Mountakha mi toog ñëpp ñaan yàlla fi sunu ko bàyyi ak wér ak liggéey bi nu ànd koog moom ba li ci yéene mu mottali ko mooy yéene kàddu yi ci jataayu kilifa yi toog kilifa yi toog nag ñoo ŋànk daayiratu muxaddamatu xidma bi nga xam ne ñoom lay liggéeyloo ca Touba muy jumaa ja ak lu ci aju ne lu ci aju nag bokk na ca morgo bu mag ba bokk na ca barab ya muy barab yu njëkk yi di xasul maab ak barab yu mujj yi di baqeya ak lépp loo xam ne xoromi jumaa ja la koy sàmm lay tax ñu ba def ci orma ja ca war ak sell ga ca war ba mu dëppook barab ba ñoom ñii la koy liggéeyloo ñoom it ñu di def yitte ji ca mbar jëpp fu ñu ci toll it ñëw leeral ko fañ toll lañ ca weesu sàkku ndigal ci la ca kanam xalaat yi ñu ca am delloo bi waaye alhamdulilah am nañ ci tawfeex ndax xalaat ju ñu ma a wax sëñ bi sëñ bi rafetlu na xalaat jooja bisimilah rek leen ci wax ñaanal leen ca loolu moo waral jataay bii ñu defaat tey jataay bi nag leeral nañ sëñ bi fi ñu weesu wax nañ ko xalaat yi ci kanam xalaat yi ci kanam nag ji ci njëkk mi ngi delluwaat ci lépp ci lislaam lépp delluwaat ci diine te tënk ba tey mi ngi jëm ci wàllu can gi ñu war a can soxna soo xam ne dañ koy labat ngir war ko booleeg borom këram can googu ñu gis ci mbind sëriñ bi ak ci ndigalam ak ci ndénkaanam ay jamonoom mu digle woon ci ñaar téeméer mag ña doon ci def doon ko def ñaar téeméer yi ba àgg ci ay jamono sëriñ Fallu ak jox ay ndigal ñi mu doon taxawuloo wàllu diina ja ñu def seen i gëstu def seen i xayma ba la ñaar téeméer manoon ba ko sëriñ bi santaane jamono sëriñ Fallu yooyu ñetti junni moom man loola sëriñ Fallu joxe woon ñetti junni yee nan nañu joxe can gi ñetti junni yee ñu demaat ba jamono yi ñoom ñii ñu gëstuwaat seen i gëstu ba gis ne la ñetti junni manoon ba ko sëriñ Fallou digle juróomi junni moo ko man fi mu ne ak ñaar téeméer biñ ko leeralee sëriñ bi sëriñ bi ne kon kàddu yooyu nañ ko yëkkati jullit yëpp ko bokk ndax loolu mbirum lislaam la lislaam lu ñu ci wax jullit yëpp lañ koy boole moom kàddoom bu koy yëkkati lislaam a koy tax a jóg ni ki nga xam ne sëriñ Touba taxaw lislaam rek ko taxaw na jóg kon sëriñ bi lu muy yëkkati lu nekk taxaw lislaam mooy tax loolaa jóg laabiré ga cay nekk jullit ñëpp la koy yéenee laabiré kon lii mu wax da ko sant jullit ñi ngir doxinu lislaam gën a mën a sell gën a rafet te ginnaaw ak caan itam dimbale soxna sa ñuy yóbbu mu am lu mu dimbandikoo ko fa mu jëm bokk na ci la tax lislaam di ko santaane kon itam ñu xool ne soxna si lii buñ ko ko joxee dana ko dimbale fa mu jëm dana tollook lañ santaane woon loolu moo tax sëriñ bi nañ yëkkati war kàddu yi leeral ñëpp ne loolu ñii biñ ko ko waxee jubóo na ci ñoom ànd na ci ñoom kon jo mi ngi joxe ndigal li te ndigal lépp ndigalu lislaam la ndigalu taxaw lislaam la ndigalu rafetal doxin rek la noonu la sëñ bi waxoon nañu wax leen waaw